leen tare bàyyi fu ngeen mën si nekk fond baa ngi nii taxaw na te liggéey na liggéey yoo xam ne gis nañ ko fu ñu daan sonne di ko dajale addiya pour chérif yi nangam ak nangam ak yëpp fond bi tëj na ko def na ko taxaw na fa taxawaay yoo xam ne noppal nit ñu bëri donc bon fond bi daf war a nekk maa ngi leen di wooyee yépp taalibe yëpp ñu xam ne fond bi digalal bàyyi la ah digalal maa ngi leen di ne fond bi itam ndimbal la ci Baye maa ngi leen ne fond bi ndimbal la pour taalibe Baye yëpp itam gis ngeen bon ne fond bi liggéey pour dolleeku liggéey pour taxaw liggéey pour wone ne mën nga dara mën ngaa yokk dara loolu moo tax a jóg fond am na lu mu def loo xam ne gis nañ ko école bu école bi ci la bokk euh, sëriñ si gan yu tedd yi ñuy teral ci lañ bokk ak euh, bibliothèque bi ñuy tabax ci la bokk kuy tabaxu nag foog nga am dara kuy am dara nag yaay génne dara te buñ ko defee dinañ gis barke boo xam ne géntuñ ko woon man maa ko wax du man maa ko wax sax waaye bàyyi moo ko wax. bon bii nag yëkkati nañ ko ngir bàyyi heure bi ko def ci Medina sos ko ci Medina te heure yi ñu ko gën a soxla ci Medina la bokk. li bàyyi gën a fonk ci àddina mooy jumaam ji ak école bi. te jumaa ji man mën naa koo seede ndax daaw ci heure bii nii mun nañ ma indilee ci dix millions boobu ba pare jënd ci itam lu mat fukki climatiseur yu armoire yu taxaw yi loolu itam bokk na ci li xam ne fond bi mu ci dimbale mu gaaw kon nag kii njëriñam ñëpp xam nañ ko fi mu nekk kon kuñ ci oo rek war ngaa def والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل المسلم المسلم وعلى آله وأصحابه وطيبين الطاهرين

Değerli Mehmet Karasmi, Ortadoğu'ya Hamdülillah Bizi Abdülsiz'e, Bölümünü ziyaret için Hamdülillah'a, Rıza Çalı'nın konuşlarına, Ziyaret Şahmet'e, Rıha'nın boyunca tutmasını. Bugün bir hafta dinlerce o, bir hafta için tüm kalp, bu hayatın müsaadenlerine

teewul président coordination bu président coordination Sénégal foofu ñu Sénégal Dakar waxtaan ak moom ne ko naa bëgg ci Kaolack bu ñëwee toog bàyyi Kaolack waxtaan ak bàyyi gis bàyyi ni nga xamee ni ñëw ci àddina bi ak gis ko ambulance bi lu ci bëri bàyyi ko mokkal laaj bàyyi ko mbir yi boo xamee waaye moom xulay baa ngi dañu wuyu si yore loolu xulay baa ngi dañu la faral la arab di assemblée arab bi mu demee Égypte mu gisee président des membres de nation wax ko bi bàyyi ne ko ko ne ko ne yónnee invitation mu ñëw seet gars yi si ñaari yoon dafa am ko wala dafa war a laajte la 11 wala 15 avril 1960 Guèye Amin Guèye ak Guèye Aziz ñu waxtaan ñu ngi leen di dimbalante diggante ñaari at yi ñu élection ci ñu ñoom Baye Baye Antoine ñëwal Oustaz Baye Mom Diaw ñaan teewal ci sama kër Oustaz Baye Mom Diaw di seetal président Mouhamed Nal Sadat temps yii mooy vice président

réellement ci nekk combat yi ni taxaw na te liggéey na liggéey yoo xam ne gis nañ ko fu ñu daan sonne di ko dajale addiya pour chérif yi nangam ak na ak nangam yooyu yëpp fond bi tëj na ko def na ko taxaw na fa taxawaay yoo xam ne noppal na ñu bëri donc bon fond bi war a nekk maa ngi leen di wooyee ñëpp taalibe yëpp ñu xam ne fond bi digalal bàyyi la ah digalal bàyyi la maa leen di xamal ne fond bi itam ndimbal la ci baay maa ngi leen di xamal ne fond bi ndimbal la pour taalibe bàyyi yëpp itam gis ngeen bon ne fond bi liggéey pour dolleeku liggéey pour taxaw liggéey pour wane ne mën nga dara mën ngaa yokk dara loolu moo tax a jóg fond am na lu def loo xam ne gis nañ ko école bu école bi ci la bokk euh, sëriñ si gan yu yi ñuy teral ci lañ bokk ak euh, bibliothèque bi ñuy ñuy tabax ci la bokk kuy tabaxu nag foog nga am dara kuy am dara nag yaay génne dara te buñ ko defee dinañ gis barke boo xam ne géntuñ ko woon man maa ko wax du man maa ko wax sax waaye bàyyi moo ko wax. bon bii nag yëkkati nañ ko ngir bàyyi heure biñ ko def ci Medina sos ko ci Medina te heure yi ko gën a soxla ci Medina la bokk. li bàyyi gën a fonk ci àddina mooy jumaa ji ak école bi te jumaa ji man boobu mën naa koo seede ndax daaw ci heure bii nii mun nañ ma indilee ci dix millions ba pare jënd ci itam lu mat fukki climatiseur yu armoire yu taxaw yi loolu itam bokk na ci li xam ne fond bi mu ñu ci dimbale mu gaaw kon nag kii njëriñam ñëpp xam nañ ko fi nekk kon kuñ ci oo rek war ngaa def Uras Info yi gaaw te wóor l'info à réel Uras Info jàngat yu xoot te dëggu notre force le traitement de l'info